assemblée bi installé nañ ko xam nga la président Macky Sall nag moom li ko gën a intéressé moo doon coalition muy Benno Bokk Yaakaar waxante woon nag ñoom lu leer aussi mi Touré moo doon euh, tête de liste mais Macky Sall it mosu ko euh, promettre ni ko yaay nekk président de l'Assemblée nationale. amoon na nag yaakaar bi man mii amoon naa yaakaar bi keneen amoon na yaakaar mais dernier rempart bi mooy le président Macky Sall te ñoom ñoo ko joxoon aussi. <coughs> carte blanche ñu ko ko jël ñu woteel ko jël na maam Diop woteel nañ ko Mimi Touré nit ku baax la sœuru président Macky Sall la ku yàgg jàppale président Macky Sall la ñu ànd di cheminé wu donc man bokkuma ci ñi koy ŋaññi wala di ko diingat wala yooyu erreur na ku nekk am ñun suñu jabar yi sax dañuy xuloog ñoom suñu doom yi dañuy xuloog ñoom day am uh, ay seytaane léeg mu dugg ci donc seytaane boobu yàlla nañ ko yàlla dàqal man li may ñaan yàlla ñoom ñu retrouvé wante parce que nag soo xoolee ci yeneen réew yi nga xool fu mel ni Côte bag Gbagbo ak euh, Alassane Ouattara ñaata person ñoo deewoon foofu ñu jàpp Gbagbo tëj soo xoolee ci Ablaye Wade ak Abdou Diouf ñeent yoon la ko Abdou Diouf tëj mais yooyu yëpp politique moo mel noonu day am ay circonstances mais bu mu tax nag ñu fàtte aussi ku ne la nga defoon démb le président Macky Sall gàcce ngalaama amul benn problème amul Sénégal Sénégalais yi ñoo bëgg a créer problème et surtout seen mbokku journaliste opposition bi def nañ conférence de presse di waaye askan wi wax ne force yi moo am te loolu duñ ko nangu. ñoom ndax ni indee sànq ñoom ñoom fan ko waroon a bañ a bañewuñ ko fa comme danoo defoon loolu nee nañ ñu tuddee ko forcing fal président de l' assemblée ci ëllëg sa waroon woon a ñëw di wut ay ay vice président ki ay questeur ak ay yu kenn xamul di wut poste ñoom xam nga lan moo leen intéressé paacoo li ñu doon gën a xam loo askan wi di wax ni lii duñ ko def lanu lanu digaloon askan wi yëpp le contraire lañ def ñoom ñëpp découvrir na leen léegi askan wi découvrir na leen pàccoo moo leen indi ñoom euh, intérêt moo leen fa indi ay lu ñuy nangoo lu ñu dul nangoo amu fi ba nu nangoo loolu gendarme yooyu dugg fi te muy yoon parce que président nag bu ñu defee ni dañuy wax rek nii fii kenn waru fi suñu fa naree indi scandale gendarme yi dugg fa ban fa duggee dañ ko dingat le lendemain war woon a ñëw li tax ñëw le lendemain Sénégalais yi nañ posé wu boobu question bañ bañ lu ñu koy waxeeti bañ lem di lekk suukar ñoo yem rek c'est la même chose. fukki at ñoo ngi baagante Barthélémy jaas demee mu war a wuy ji tribunal war a joxe verdict ci deewu Ndiaga Diouf en doom ban message nga am ah, sama doom la Barthélémy ma ngay wuy ji nag na wuy rek yàlla na ci yàlla def jàmm itam parce que Barthélémy de toute façon nit ku nekk nag ak euh, tempérament man mii dama am sama tempérament. nit ku ne ak tempérament loolu jàll na su ci yàlla suñ ko mënee saafara yàlla na ko yàlla saafara mais yoon moom euh, yoon la man am mbiru yoon duma ci dugg du ci wax muy bu Barthélemy rek bu keneen laa ci yemale ak yeneen yi bëgg a ñëw. dëkk bi ñu nekk di États-Unis communauté sénégalaise bari nañ fi mm-hmm. te bu ñu nee communauté sénégalaise dañu wax ci wàllum culture te mbër yi fi nekk bari est-ce na pour tëggal leen combat. ah bien ah bien sûr ñoom bàyyiwuñu làmb ñu fi nekk ñëpp. genn wàll gi wunu làmp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñun ñu ngi waxante mais itam nag dañu xam nga ci temps wu Covid beeg yooyu ñu bëri dañoo déplacé wu ñëw parce que il faut ñu dund dundal seen njaboot mais taxul ñu bàyyi làmb ñu ngi fi te it amal am nañ fi njariñ parce que amal nañu njariñ même le président Macky Sall parce que xam na ni président Macky Sall seen président la suñ fi nekkee dañ koy aar man ñëw naa daaw ñëw naa ren mais dañuy aar le président Macky Sall parce que am na fi benn proportion de personnes yu nekk fii nga xam ni bu dee bonarien ku taxaw ñu yuuxu la yuuxoo la ñu xam ak yooyu parce que xëy na dañ daan yuuxoo seen i waajur ñoom yuuxoo la ñu xam ak di saboter ku sooy saboter bay saboter sa réew nag kooku aussi bon seen problème la même man mi yuuxoo nan ma waaw sànq parce que je suis le euh, l'ami du président Macky Sall xam nga moo su wax Gaston corrompu booba ñàkk nga euh, loo wax ki nga xam ne li mu liggéey lépp li mu am lépp da ko partagé moi je suis un homme de partage da ko partagé waa Sénégal ñoom ñoo koy wax mais lamb ji duñ ko wax sport bi duñ ko wax jeunesse bi duñ ko wax mais nag ñoom comme c'est des bandits il faut leur laisser leur leur chapeau de bandit leur étiquette de bandit uh-huh. c'est tout man yi ñuy wax nan saaga nan def lépp wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo voilà